salaamaaleykum mbokk internet ak abonné wu seen xibaar info dal leen ak jàmb indi nañ leen nag ab xibaar bu bees ci mbirum sumbulu ak Abdoulaye Diop Khass mi nga xamante ne seen su xaritu sumbulu boobu di Adji Mass moom moo ko daal di siiwal ci ab émission bu doon am fële ca Sénégal 7 am na mbir mu bees nag mu ci daal di xew ndax ñu bëri ci internet bi dañu doon xamle ne sumbulu bàcc li moo daal di yónni kii di Adji Mass ngir mu siiwal divorce am boobu mbir moomu nag nit ñi ngi ko déggee ci gémmiñu Adji Mass boo xamante xamante ne dafa daal di génn ci live boo xamante ne Choco no stress daf ko daan def di setal boppam di wax ne bàcc Bathily moo ko woo kër Balla Gaye ne ko dafa divorcé te bu sañoon mu siiwal ko ci site internet yi moom Soumboulou nag di ndey ji mbind ji daal nay génn dindi tuuma yooyu ba mu daal di set wecc bàcc Bathily nag mi ngi xamle ci audio boobu ne bi mu yëgee ñuy siiwal divorce am boobu ci émission bi dafa daal di tiit ndax xalaatul woon benn yoon ne jikko boobu mi ngi ci xaritam bi di Adji ko gën a métti métti nag mooy di di Adji Mass di toog di wax ne moom mbir mi du ko bàyyi noonu mel ni comme si moom daf ka wax dara lu ko métti alors que boobu ba léegi mu ngi supporté mbir yi jël yëpp ci kawam waxu ko dara leen fàtte benn yoon abonné wu ci chaîne bi di liker ak di commenter suñuy vidéo ngir mën di jot saay su nekk ay xibaar yu wér te wóor lu Soumboulou li nag mu ngi xamal kii di Adji ne ko ni même bu fekkoon ne moom dafa daal di divorcé waru ko woon wax wala bu ciy wax nag war naa am foo xamante ne war na faa yem ndax boobu ba léegi mu ngi topp mbir mi di ci wax a ko waxaat te bu yàggee seen diggante dina yàqu wala mu yegg foo xamante ne bu sañoon du ko neex te du neex kii di ajimaas Mass bàcc li nag yemul foofu ci audio boobu ndax mu ngi xamle ne bi mbir mi siiwee dal dina wax Adji Mass ñëpp a ngi wax ne man maa la yónni te yónniwu ma la ci la ko Adji Mass daal di waxee ne moom nag dina toogoon fa mu toogaat wax ne lépp moom moo engage engagé responsabilité am waaye bàcc Bathily yónniwu ko benn yoon mu dem ba ci biir nag dégg commentaire yeeg nit ñi li wax mu bëgg cee setal boppam dugal ko waral nag waa seen xibaar info dellu siwaat ci xibaar boobule moo di Soumboulou Bathily ba léegi kenn dëkk ko mu yëkkati ay kàddoom mën a joxe la version des faits ndax Adji Mass rek la ñuy dégg muy wax ci mbir moomule moo tax pour équilibrer information bi nag ñu indil leen li nga xamante ne Soumboulou moom la indi comme ton tontu gannaaw ba Adji Mass waxee ne moom moo ko daal di yónni